ci jóg euh, joob xam nga ñaare euh, dañu koy wax soxla bu teew ay nelaw euh, faju ko bërki démb ñaax nañu xale yi surtout ci lii ñu tuddee job te pour bu bër jotee muy vacances na ngeen am habitude peut-être di dem liggéey loolu nag yàgg na Sénégal parce que bu njëkkoon danga nga daan gis bu vacances jotee way jur jël doom yóbbu kër nijaayu menuisier wala kër nijaayu mason wala kër nijaayu menuisier métallique pour xale bi jàng métier yooyu yëpp dafa am solo bëgg nañu ngeen tàmmal ko seen bopp donte euh, jamono dafa soppeeku et que peut-être amatuñu euh, jot ak moyen toppatooy doom bay jël ay jarbaat euh, waaye ñun ci suñu bopp rek bëgg nañu xale yi kenn ku ci nekk nga farlu parce que maintenant xaaratuñu gouvernement def dara loolu moo tax nag CV yi d'abord bëgg naa ñu ñëw ci juste après on donnera des conseils concernant li nga xam ne ni bëgg nañ ci joxe ay conseils pratiques yi ah. alors damay ñëwaat tuuti rek ci li nga wax hmm. a étudiants au niveau de l'université de Dakar euh, mu nekk ay étudiants yoo xamante ne euh, actuellement ñu ngi sax euh, maîtrise ah di def seen maîtrise c'est des maîtrisards mm-hmm. mais bu vacances yi jotee Pape Cheikh dañuy dem bindu ji mm-hmm. même bu dee trente mille lañ leen di fay par mois ça peut leur servir rentrer des classes bu jotee xam ngeen ni bourse yi à l'université da ngay waaru mm-hmm. yenn saa yi bala nga cee jot dangay daw ba sonn am na yoo xamante ay manuel yi nga xam ne da nga koy jàng donc manuel yooyu noonu euh, je me rappelle amoon naa benn xarit boo xam ne dafa doon wax ni que ñoom bu année scolaire jotee dañuy xool seen chambre ñaata lañu bu ñu nekkee 5 manuel bi buy jar 25000 ku ne cotiser 5000. ñu dal di ñu daal di jël livre bi euh, daal di ko séparer en plusieurs parties ki day liir première partie bi bu paree paas ki kii lire bu paree paas kii donc pour dire que yooyu yëpp tey jii boo bañee mu fekk la ci mën nga def li nga xam ne mooy des jobs d'été Euh, étudiant nga yaa ngi université am nga une certaine capacité pour man euh, au-delà de de même domestique yooyu noonu parce que lu jafe la ah lu jafe la mais au-delà de ça vu qu'il y a pas de sot métier mën nañ dem en entreprise effectuer des stages parce que tey mënoo dem ba am bac je dis les entreprises n'ont pas besoin d'étudiants théoriques nga génn amuloo benn expérience en entreprise exactement amuloo benn expérience en entreprise nga ñëw tu tu veux faire valoir un bac plus 4 euh, avec aucune expérience musoo xam lu xew ci entreprise euh, d'habitude dañuy privilégié ki nga xam ne au moins chaque année de formation euh, effectué na un voilà na un stage d'un mois et puis léegi euh, je pense que Sénégal on est plus ci benn système américain on les diplômes c'est vrai que c'est important mais pas plus important que l'expérience parce que on n'a pas le temps de prendre quelqu'un et de former alors que am nga ko opérationnel exactement Bouba mais on va passer Pape Cheikh directement ci CV yi kii léegi dugg liggéey léegi euh, fruit euh, productif ci saa si. exactement ñoom entreprise yi loolu la ñuy bëgg. faamul tax nit ñi bu ñuy wax doo leen bàyyi ñu àggali. parce que yéen bu may wax doo leen ma bàyyi ma àggali. baal ñu kon donc euh, dugg léegi. opérationnel léegi opérationnel léegi nii. boo ci seetloo Pape Cheikh bac plus 3 léegi xale bu ko am. Mm-hmm. Ah? boo duggee ci entreprise euh, la nga fa fekk ka nga fa fekk def fa def fa def fa trois ans mën nga def liggéeyam. Mhm. parce que formation yi c' est des formations euh, opérationnelles da ngay génn rek professionnalisant opérationnel da génn rek nga mën a exercer sa sa sa sa sa sa fonction parce que dès la première année spécialisation bi day dugg. Mhm. donc c' est c' super important mais dañuy xool CV yi d' abord euh, am na ñaari CV yoo xam ne Pape Cheikh tànn nañ leen ñu jàllale ko on démarre Pape Samba s'il te plaît avec le CV 2. voilà il va nous montrer ça en euh, ne moom chef de projet web marketing la euh, mu ngi am son dernier diplôme 2010 2011 un de technicien supérieur en transport logistique à l'école supérieure de logistique euh, transport Eslot concernant ses expériences professionnelles liggéey na ci entreprise yu bëri il a été de mission web Orange relations clients grand public Bagneux en 2000 de 2005 à aujourd'hui Euh, du site internet animation analyse des euh, audiences et recommandations associées conception et réalisation des relais print et digitaux administration de gestion euh, de web TV communication interne animation du réseau social d'entreprise tutoriel atelier de formation participation à la définition de la stratégie de communication interne et il a été assistant e-marketing également au laboratoire groupe PCSA à Paris de à toujours comme assistant marketing communication club Val de Breuve de Beuvray donc euh, entreprise Cachan de 2011 à 2013 et de 2014 à 2012 il a été au niveau de pôle Paris Alternance euh, Paris euh, 14e en master digital marketing donc pour le contacter ce sera par mail à adama.ba@gmail.com le CV suivant c'est celui de Odette euh, Odette donc euh, Nyerengom euh, qui a eu son dernier diplôme en 2016 un DICEM diplôme supérieur d'entrepreneur manager lauréat en PSEJ programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes alors il a elle a également travaillé dans beaucoup d'entreprises euh, parmi lesquelles on peut citer de janvier 2015 à octobre 2015 KCS BTP Euh, comme euh, responsable commercial et marketing. Euh, marketing et commercial sont les tâches effectuées, études de marché, marketing relationnel, mise en place de politiques et de stratégies commerciales. Et décembre 2014 à mars 2014, elle a travaillé au niveau du bureau de poste à Ganjai en tant qu'agent de guichet. Euh, elle a fait tout ce qu'on qu appelle transfert ou retrait d'argent par Western Union, Post One, RIA. Elle a fait de la comptabilité, l'accueil des clients. Et de février 2013 à avril 2013, elle a travaillé au niveau de COSAMA, Consortium sénégalaise d'activités maritimes. Elle a effectué donc un stage checking, accueil client. Février 2009, avril 2010, Aérotaxi Sénégal à Cap Skiring, un stage de billets d'avion, donc tout ce qui est billets d'avion, comptabilité. Pour contacter Odette sera par mail à odette1967@hotmail.fr. CV mooy baa bi ak man je suis pas d' web webmaster web marketing koo xamante ni kii muy wut liggéey ah. ah. à l'heure où man je suis pas d' accord kooku CV bi muy muy wut liggéey au contraire kooku dañ doon waroon di ñëw di jël si ci moom liggéey. Mm-hmm. actuellement koo xam ah, digital bi fi mu toll nii. actuellement nekk kuy kuy évoluer ci web marketing wala. Euh, web ah, euh, en fait actuellement mu ngi France. xam naa dafa bëgg ñibbi si Sénégal. mais mën na créer mën na créer. Euh, sur internet mën na créer benn affaire bu nga xamante ni vraiment. bu ñëwee fii Sénégalais di ci mën a jariñu mais pas moom muy bon. mais Ndiaye xam nga waxtaanee nañ entrepreneuriat. ku ci nekk yow yaa xam say capacité d'entreprendre du ñëpp ñoo ko mën. Mm-hmm. Euh, mën nga am fit mën nga am compétence yi mën nga am kii euh, mën nga am euh, li nga xamante ne moom nga soxla yëpp pour créer sa entreprise lancer wu mm-hmm. mais du il faut être prêt il faut être prêt il faut pas se lancer aveuglément c'est pas parce que am nga compétence yi am nga Euh, peut-être bëgg na mettre à. man ci côté digital bi daal moo ci côté côté digital bi mën a démarrer. avant muy euh, avant muy créer. waaw mais mais mais il vous dire que dafa am talent bu dafa am lu am solo. waay euh, surtout ak jamono bi jamono ji mu toll nii am na loolu foofu laay waxee li nga wax ci entrepreneuriat bi c'est bien c'est important. Mm-hmm. mais li may fi may waxee mooy ci juste ci côté digital bi ak évolution bi internet toll war na mën a def lu nga xamante ni surtout. lu ko Sénégal fii ni ñuy soxla loo xamante ni ce sera très utile. mais mais xam nga dañuy wax souvent Ndiaye euh, boo gëjee benn dëkk. boo fa demee il faut nga am temps d'adaptation. Mm-hmm. Euh, il faut nga liggéey ci entreprise yi pour pouvoir contextualiser les choses. Mhm. parce que la nekk France nekkul Sénégal. dëgg la donc di nga jéem a dem ba maitriser marché bi euh, liggéey ci benn entreprise bi def digital fii. Mhm. ba ba ba maîtriser marché bi. Mhm. après boobaa mën nga créer euh, sa sa sa sa entreprise. environnement yi bokkul et tout ça. il faut ah, mettre def ni Amadou rek Amadou génn génn dugg ci taxi bi rek ne ko Thiès. <laughs> bañ a def loolu bon c'est cool en tout cas on leur souhaite euh, bonne chance. on leur souhaite bonne chance mais Pape Cheikh dama bëggoon attirer attention euh, la dernière fois on a parlé de de de on a enfin on a un peu donné des conseils ci bacheliers yi ñi nga xam ne ñu ngi door am seen baccalauréat. Mm-hmm. d'accord par rapport à leur choix de formation pour leur futur métier mais dama bëggoon tey attirer seen attention un peu sur les bourses d'études. Mm-hmm. y a beaucoup d'arnaques. bëri na ci ay xale yoo xam ne dañ leen di nax euh, di leen yónnee ay mail yoo xamante ne dafa nekk ay euh, ay ay euh, je dirais de des personnes de mauvaise mm-hmm. foi. ay gajamboore. voilà yu nekk ay mm-hmm. nekk Canada parce que ku ci nekk fii tey ji boo ko yónnee woon document ne dangay dem jàngi Canada. Eh eh. yónnee ma ak drapeau ba kii bi seen bis bisaab bu xonk bi ci digg bi. waaw kay kay moo sax. email bu ma recevoir gis ci euh, bisaab bu xonk bi damay signé. <laughs> c'est vrai ah. mais wóorul quoi. xam nga li si doy waar mooy euh, site internet bi ñu lay defal en copie. Mm-hmm. information ñu lay jox. Mm-hmm. seen numéro de téléphone. boo wootee da ngay yem ci nit. Mm. boo duggee ci sit bi da ngay gis information yi ngay laaj. Mm. c'est bien fait quoi. Mm. c'est tellement cest dire euh, intelligence bi ñu am pour arnaquer les gens. Mm-hmm. Euh, boo amul vigilance bu aigu rek Pape dañ lay nax. donc li may leen ni conseiller mooy bu fekkee da ngeen gis benn benn benn benn demande benn offre boo xamante ne c'est pour une école à l'étranger euh, ku ci nekk yaakaar naa ne lu mu gàtt gàtt war nga xam kenn ku dëkk foofu. Mm-hmm. nga jéem a renseigner wu nga mën a vérifier les informations sur place est-ce que c'est du réel. Euh, si c'est pas du réel nga retiré wu. Euh, ba pare di leen fàttali nii fii au niveau du Sénégal ils ont la possibilité d'avoir des bourses fi Sénégal. Mhm. pour ñi nga xamante ne dañu bëgg bourse euh, bu ñu duggee internet rek ñu tappee bourse au Sénégal am na benn service public ak privé boo xam ne état du Sénégal moo ko fi teg ñu mën a am renseignement yu ñu soxla yépp bu fekkee da ngeen bëgg dem à l'étranger bourse d'études yi ngeen soxla pour dem à l'étranger bu fekkee fii ngeen bëgg a jàngee dans des écoles privées également par rapport ak voilà par rapport ak seen Euh, seen i capacité seen i seen niveau d'étude ak seen euh, voilà y a y euh, de de de, sélection yoo xamante ne bu fekkee xam ngeen ni ko vous êtes très bon mën ngeen dem demander de l'aide au niveau de l'État yéen a ko moom bu ngeen demee foofu ADIE mooy service renseignement bu État du Sénégal bu ngeen fa demee di ngeen mën am information yi ngeen soxla yépp pour seen bourse d'étude et que ñu bañ ñu bañ a ñu bañ a ñu bàyyi ñu leen di nax <laughs> tu li ngay li ni je pense Kajoor xam naa li ngay wax ñu ngi sàggu seen baat di ngay wax ñu naan. <laughs> damay dem de. <laughs> ñu ngi vacances ñun nga naan lan. J'en profite pour saluer Abdou Sène, c'est lui le directeur de l'enseignement euh, supérieur privé. Qui est d'accord mais mais c'est intéressant il faut que euh, étudiants yi quand même dugg ci site bi. voilà nañ dugg nañ dugg ci site yi ADIE euh, e. donc ADIE e mooy agence de l'information de l'État euh, bu ñu fa duggee ñu deppee ñu tapé bourse d'études uh-huh. euh, dinañ leen wan possibilités yi nga xam ne ñan ñoo mën am droit à des bourses uh-huh. yan documents lañ war a fournir également yan délai de traitement le dossier boobu di am et puis pour ñi nga xamante ne dañu bëgg a renouveler dañ ko defoon daaw amuñu bourse ñu bëgg ko renouveler également. Uh-huh. dinañ am information ak procédure yëpp yi ñuy utiliser pour am bourse